bii benn xale bu jigéen la woon ndeysaan xale jigéen bu rafet woon nag wax dëgg yàlla amoon na faru mbër amoon na <laughs> waaw ba tey waaw amoon na faru mbër amoon na faru euh, nu ma ko amoon na faru euh, fecckat wax dëgg yàlla amoon na faru militaire waaye nag yàlla da ko euh, tog toog teg mu am benn mu wan lor dafa wan lor nag gars yi nag kan moo ko tooñ kan moo ko tooñ gars di ko liggéey nan xamuñu parce que li mu doon nekkal moo bëri ci mbëri yeeg gars yi mooy loolu. billaay wallaay wóor na yàlla xale bi jaay ah, gars yi di xaar ne xale bu juddoo rek dañ laaj xanaa femme bi wax ku ko jur xale bi daa judd rek ñu génn ko rek mu ni ginnaaw moo sant yàlla jur si yéen bi sant sama ñaar waajur maa ngi gërëm <laughs> ay man la ñu ni mbër ba mbër ba yàq na mbër ba na kaas yi naa foofu rek may ko noonu bàyyi sàmba gis